Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wa senegal ak domi Senegal. Fepp fi ngeen ti nek si Adinabi, bi Ma ngi len di ziyaara ma ngi len di balwaq, ma ngi len di baal te di ñaan suñu borom mu sam len. Sam njabot gi gep. Tay sama anniversaire la Kontan na lol jakarlo ak yeen waxtaan ak Sénégal ci xew-xew yi nga xam ne ñoo lamboo suñu dund fii ci Sénégal sama mbégte dafa gën a rëy ndax dafa fekk ni tey jii le juillet dafa collaborer ak li nga xam ne cadeau bu rëy bi nga xam ne ministre de la justice muy maître mm-hmm. Malick sàll defal nu ko waa Sénégal te di ñaan yàlla kado boobu. yeneen cadeau topp ci di ñaan yàlla gannaaw kàddu yooyu Sénégal am jàmm jàmm ju bari bëri bëri bari lool te mu jig jignu mbégte boobu lan moo ko waral gis ngeen démb ki nga xam ne mooy suñu ministre de la justice gannaaw bi mu defee sorti am nee na euh, Sénégal mënuñu woon placer li nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne moom moo amee euh, dossier moom la ñu impliqué ci dossier buñ ko boolee ak euh, Adji Sarr lañ leen waxoon ci njalbeen ba léegi ñu weddi ko ne luñ leen wax dara du ci dëgg moom la leen maître euh, Sall ñoo wax ni ndeke ñoom école yu ñu jàngee ñoom école yooyu lañu jàngee li nga xam ne du mënut a nekk dëgg si ñun. te ñom ñu ne la finalement mon maître euh, Sall fekkee si nañu né nañu li nga xamné ne lañ lañu Sénégal né dossier bi dafa faible dossier bi amul dara dossier bi par par lola dossier bi tapalé la maître euh, Sall loolu la reconnaître démb né na leen au vu du PV la nek ci PV bi mënutoon tax ñu placé kenn sous mandat de dépôt mënutoon tax ñu arrêté ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko kàddu yooyu bu ngeen di fàttali moom laa leen waxoon ci njalbeen bi coow li commencé le 3 xawma le 5 euh, février newoon naa leen bu nu sonal suñu bopp bu nu tardel réew mi ci coowum viol wala ñàkk viol ndax enquêteurs yi ci njalbeen la leen ko wax enquête ñu ci lu jëm ci viol ndax xam nañ ni naka sa kandang la ay tàppale la lekkee wax xale bu jigéen bi amul dara loo xam ne dafay niroo ak siif la muy niroo mooy waxoon naa leen ko ne leen ab complot la bu ñu tëgg te ñu ko tëgg dañoo wa dañoo cuune dañoo laaj ba tax na ne naa woon leen li ma ragalaloon askanu senegal mooy insurrection la ma ragalaloon askanu senegal mooy wàcc ci mbedd bi nga jóg wax dara aduna dox dox dox dox ba ñu ne diw waxoon na ko wala li nga wax moo ngi nii loolu la ñuy sant yàlla loolu la ñuy ñaan loolu moo tax ñuy sonn ñu daj coono bi yëpp te defuñu ko pour waa góor defuñu ko pour yaay jàmbaar di de dañ koy def ndax dañu bëgg senegal gi mu am jàmm démb gis ngeen ko. ne nañu dossier bi il faut que mu dem jusqu'au bu man loolu mooy suma combat saa su ne nañu jóg taxaw wax dëgg te muy dëgg kase kase kase leneen bu mu ko lal suma ànd ak koo xam ne dafay néewal nit doole du tey laa koy commencé dossier siif bu ma ko gisee damay taxaw ca wetu ku ñu néewal doole mais dossier bu mo gisee tamit ay nit ñu comme néewal ne doole danaa leen li complot la danaa un wax ni la ca bir ci dossier bi motax pour la première fois dans l'histoire ñu qui nit ci walum viol te mësuta dem kasso dans l'histoire du Sénégal en tout cas mais mën naa sax xababal ne dans l'histoire du monde parce que viol crime la Ousmane Sonko moy mennum muñu ñu inculpé ci yeneen réew dañ naan mise en examen ba paré kenn musuko tek loxo kenn mënu ko dugal ci kasso bi malgré que ñom askan wi moo téye woon seen loxo parce que sen projet moo doon dugal ko ci kasso bi Maître Malik Sall nee na leen le contenu des PV ne permet pas de placer de le placer sous mandat de dépôt donc la nek ca ca ca dossier bi dafa ñak fayda dafa woyof dafa dafa dafa dafa laaj tellement que mënu ñu cee top kenn dégg naa ñu bare ñu ni maître malik Sall dafa violer le secret de l'instruction déedéet maître malik Sall suñu xolé ceux qui sont concernés par le dossier violé le secret de l'instruction parce qu'il n'est pas attributaire de des, secrets qui sont dans l'instruction donc jalgatiwul dara dëgg dans une république nous avons un dossier qui est le mu ministre de la justice Banche Atou. attu gis depuis le commencement muy mom, muy président de la république muy euh, rakk ji euh, euh, ministre de l'intérieur Félix Diom, ma fàttali leen ni ñu bare dañuy wax Félix Diom procureur le procureur le mustonek nekk procureur dafa nekk substitut de procureur substitut de procureur ak procureur plein il y a différence donc premier poste de responsabilité bi Félix Antoine Diom jot gannaaw substitut de procureur Macky Sall ci confiance bi mu am ci moom daf ko tëbal ko directement euh, agent judiciaire de l'État agent judiciaire de l'État ma fàttali leen ni poste la président de la République surtout Macky Sall ay ñi nga xam ne li mu leen def defloo ñu def ko ñooñu rek la koy dénk euh, euh, Anta Diome la ko dénkoon jëlee ko euh, substitut du procureur def ko CREI dénk ko CREI bi mu jëlee ci CREI bi la ko dënk li nga xam ne mooy tey ministre de l'intérieur gis ngeen encore tey agent judiciaire de l'État kan la ko dénk mooy recruteur bu mag bi recruteur de nervi mooy maître mussa Bokar Thiam maire Wourossogui gi bi nga xam ne lu ko neex la fay def depuis des années mu ngi nekk maire conseil municipal amu fa waa dëkk bi ku yëngu mu jëla la ay bandi yaraax indi li leen di saaga nit ñi ndey di leen dóor Macky Sall moom la jël def ko agent judiciaire de l'État mu mel nii ay voyous ak i bandi ak i délinquant dafa neex trop président Macky Sall muy ànd ak ñoom man mi wax ak yéen waa kéewuloo dem nañ fa enquête fay nga xam ne mooy wuroso gi gannaaw waa dëkk ba di jooy situation bi nga xam ne moom la ñuy dund Euh, kii di Moussa Bocar Thiam ànd na ak ay voyum attaqué sama journaliste muy Serigne Jonn ba gaañ ko toj samay caméra muy su Macky Sall muy après Macky Sall nu mu mën demee bës na jot ma laaj ko compte ci loolu parce que boobu ak léegi talu ma ko leneen laa tal maître Malick Sall muy ministre la justice nee na leen y' a pas au vu du procès verbal pour que ñu topp kii di Ousmane Sonko ñu tey ko mandat de dépôt. te bu leen fàtte ni ñoom ñooñu ñoo doon toog di wax ni les éléments constitutifs yi nek ci dossier bi taxna ba Ousmane Sonko il faut mu wuyu Ousmane Sonko il faut ñu tek ko ci yoon bu leen fàtte ni muy euh, Maître El Hadji Diouf ak ñi mu andal ñoo top naan dossier bi dossier bi dossier bi li ci garaaw la nekk boobu ñu taxaw naan len sen dossier bi amul dara amul adayen amul preuve tay encore dina gëna xoos wax len ni Adji sar ci bopam à part du, du, du déposer plainte dans la nuit du 2 au 3, euh, dans la journée du 2 au 3, Adji Sarr si le 5 décidé woon Nani Bougoun retirer plainte am ne ci parce que na dañ ma dugal ci loo xam ne xaw ma ko boobu Bobo, am jàmm boobu lañ ko tenir en otage pour mu reculer déglu naa Famara Sarr déglu naa benn tontongam ne ñooñu du ma sa wax seen wax seen waxtu dina jot Famara Sarr man du ma xaste du mais euh, beaucoup na ci ñi nga xamné ne kenn waru len wo wooye bay ci Sénégal ay géniteur lañu fofu la mëna yam ci mom data yu bare dina leen mën naa ko wax té ma ngi préparer ma ngi len koy wax Sénégal je prends la ferme euh, euh, le ferme engagement devant vous ma ngi bind téré dina publier livre ci dossier wu Adji Sarr bi parce que duma ko bàyyi pour l'histoire la wax leen kan mooy yaayu Adji Sarr euh, fu mu doon dund nan la doon dundee ak kañ la gaañu ak nu mu gaañoo dinaa leen wax tout wax naa leen ni Adji Sarr am na doom ñu ne génneel photo génneel tour mais nit ñi dañuy fàtte man lépp lu may def dama koy teg ci droit dama koy teg ci yoon du ma jalgati yoon jamais yoon mayeewul kenn ci journaliste ngay tudd turu xale mineur ngay gini photo xalé mineur wala ngay guéné ak de naissance am wala amulo ci droit té duma jël gati yoon parce que man dama bëgg Sénégal bu jamm loolu la bëgg coow lii gis ngeen biñu yéwo ñu neen li jar door sa dom la ñu forcé ñu ne no problème problème bañu indil Sénégal ci goute bi ñu duggu tay. moy am 14 morts 14 morts yi encore na leen defal scoop. ñoom li ñuy def tey bu président Macky jàlle dana ñu voté loi d'amnistie du ñu jàpp benn force de l'ordre du ñu jàpp kenn ku dóor nit duñu def dara tey jii bu président Macky Sall mën a jàll dans un second mandat wala boog balaa moo jeexal danañu jéem a voté loi d'amnistie bi nga xam ne képp ku fi dóoroon képp ku fi jamoon nit paaga képp ku fi reyoon nit mu jotee ci wàllum euh, cow yi ñu génn kenn dootu la mën a toppati ci dara loi boobu dans quelque temps léegi mu intervenir l'objectif pour sauver ces gens-là pour que mu menions 14 personnes yi nga xamné ray nañ len dara duñ ci gannaaw biñu len ray ko de nañ len wa Pastef ñoo len ray ngeen ko ñu ne len ñi ne nañu résister ñom ñoo len ray ngeen len né nañ len touti sax ñu seen yaay ak seen papa yi police ñi rey nañ leen ay ay ay yu kenn identifié wul ñoo leen rey ñii dee nañu ay gendarme ñoo leen rey muy waa biñona ak waa jawbe kooku kenn mënuñu xëpp kenn mënul changer suñu kanam kenn mënuñu loo naan loo kenn mënuñu woon vacciner kenn mënuñu piqûre kenn mënuñu naan loo ndoxu robinet bi tax ñuy fàtte loolu mënut a nekk donc si le PV comme ni ko ministre bi Malick Sall waxee amul élément euh, bi nga xam ne jaroon na ñu teg Ousmane Sonko. sous euh, mandat de dépôt mënu taxone ñu arrêté ko donc sen PV amul dara kon lan mo tax ñu won dégg lan mo tax ñu conduire dëkk bi ba mu tollu fi ñu tollu tay parce que dafa melni nit ñi xaptalu dafa melni sabar buy bëgg tass lu leen di lo sax xamuñu ko du dara lu ñuy inventer code pénal code de procédure pénale du ñun ñoo bind du ñun ñoo ko inventé fi nek ñu war ci top ñu war ci teunku ci base bobu la ñu teunku ne len selon les éléments de constatation li nga xamné mo ngay lamb daj amul dara lu woné ni Ousmane Sonko luñ koy topé moko def né nañ len selon les auditions déglu yu ñu li Adji sar di wax sa kandang la te amul dara lu lal ni Adji Sarr la muy wax amna parce que enquête dama kay wax dama kay enquête c'est d'abord des constatations lamb sept éléments de preuve après nga dogo a ci audition capitaine Sidna Omar Touré mi nga xamné mo diriger dirigé enquête bi and ak section de recherche sous le commandement de lieutenant-colonel aujourd'hui Abdou Mbeng gisuñu dara code de procédure pénale dafa né euh, lorsque vous arrêtez ou vous auditionnez ou vous, ouvrez une enquête sur une personne, il faut avoir des éléments, des preuves, mais des indices. indices alors que dans le monde entier, c'est des preuves irréfutables de la culpabilité d'un individu, le 17, traduit devant le procureur de la République. Mais au Sénégal, ce sont des indices, des preuves, ça, indices. Mais amour dara, qui indice, Ousmane Sonko, l'unique mais gis ngeen fu ñu yóbbee les éléments de l'enquête dama len koy wax aji rabissar amul numéro téléphone Ousmane Sonko mosu ko xam xamul numéro téléphone Ousmane Sonko aji sar numéro bu mu jox gendarme numéro bobu du numéro Ousmane Sonko mais numéro Ousmane Sonko euh, gendarmerie def na ci réquisition amul ben yoon bu Ousmane Sonko di dem ci salon bi suite beauté mu yobale téléphone am amut aji sar xamul téléphone am Adji amul ben yoon bo xamné ne ak Ousmane Sonko parce que tay fen bobu la ñu bëggal ñom ñaar amna luñu sék ñom sikk ñoom ñaar mësuñu sikk dara ba dara booloo di jeex et là je mets mon honneur et ma dignité et ma parole en jeu ça fait presque 3 ans wala 2 ans pour ñi nga xamné ñu bëss ñi may doog découvrir depuis 2003 ñu bëri xam nañ ma fi Sénégal musuma bind ben article bu ñu weddi musum kenn musuma yobbu tribunal pour diffamation musuma bind dara nit weddi ko amut parce que lepp lu may def sama ba mel lay seet dama am samay nawlé ci dëkk bi dama am samay nawlé ci biir réew mi ñooñu laa ruus am na yoo man dama ko jomb Ousmane Sonko togn nañ ko togn nañu 14 personnes yi nga xamné ray nañ leen seeni mbokk togn nañ leen togn nañu yu bëri yi nga xamné am nañu ci réew mi wa keur ñak jammit togn nañu wa senegal ndax tardel nañu ndax indi nañu fitna ci lo xamne ne xam nañ ñu procès verbal ba la fa nek mënu ta tax ñu tiyé kenn kon lu tax ñu essayé won ko tiyé Ousmane Sonko kéro en violant flagramment c'est c'est c'est c'est droit à l'immunité parlementaire li yëpp lañ loon bëggoon éviter le Sénégal mo taxone ñu melni man ñu ubbi seen gémmiñ di wax rek. ñu takk rajo yi di wax du pour gis leen ma du pour maa fi gën a guerrier non lii daf ñu perte le temps sax parce que man am naa leneen lu may defi naa leneen lu may defi mais lii la ñu xamoon moom mooy ñëw Sénégal xam ne ñi dañuy bu ñu leen bàyyi ci lu leen neex suba dinañ nekk foo xam ne dinañu bëgg a changer réew mi te duñ ko mën parce que dinañu dugal la culture de l'impunité dans ce pays dinañu dugal la culture de l'injustice dans ce pays Adji Sarr mësuta am contact ak Ousmane Sonko Adji Sarr amul numéro téléphone Ousmane Sonko keroog am na benn détail boo xam ne sax damay dégg sénégalais di ko layam layame newoon na daf ko violé am nañu ADN et tout ça mais dem ba ñuy wax ay waxu daf ko dafa ëbb alors que procès verbal bi nga xam ne euh, rapport médical bi nga xam ne médecin bi moo ko def médecin boo xam ne encore ñoom ñoo ko choisir muy Alfousseyni Gaye moom gynécologue la donc li mu xam mooy jigéen ak la nekk ci biiru jigéen bi kon mom bu xolé la première des choses bu fekkee ne Adji Sarr ëmb na daf ko wara noté ci rapport médical bi mais musta wax Adji Sarr bu ëmb docteur Alioune gay musta wax Adji Sarr bu ëmb ñu ñu lu ñu ñu nax askan wi ñu tardel rew mi lu ñu Adji Sarr dafa ëmb moo taxon depuis si ben ne leen ne Adji bu ëmbee laaj leen ko mettre El jour parce que mom mo xam Adji Sarr boo amee doom parce que bu fekkee ne na mois de février lañ nekkoon tay ji ñu ngi mois de juillet kon ëmb bi war na am ëmb dafa melni ni lu ñu naan dox du gelem la rek ci kaw la jëm ci kanam rek tay war na am lu mat ay 5 6 mois mais ci digënté bobu nañ leen ko laaj mettre la jouf ak ñi mu àndal parce que bu leen fàtte ni la jouf nekkulon rek mom rek moy avocat mu ngi ci won and ak euh, jali kan mais jali bi mu xamé ni li fenn la daf ci génn ba mu set bàyyi mettre la jouf parce que mettre la jouf Diouf dafa am beneen programme. mom da fay revanche mom daf boy ñoko nan violeur violeur bu bëgg a régler loolu il faut mom kenen ku melni mom ñu tuddé ko violeur ci dëkk bi. Ajara bi amoon na détail bo xamné ne rëccu na ñu bëri wax nañ leen mom moy kan expliqué wu nañ leen passage am ñi ñu ne dañu acharné wu ci kawam dañ ko xex te kenn xeexu ko kenn bëggul xex Ajara bi Sarr man kuma xam-xam ne ku ñu néwul doole ci réew mi ma and ak yow mais dama mënut gis. dama munda and ak aji sar parce que dama xol dossier bi xam li da daa nekku ci bolé ci tay ji bu len fàtte ni barki dem ñu ngi wax xalé bu góor bu jigen Louise bi nga xam doomu Cheikh Yérim sek violé na mok yaayam ñu nekk fi jigen ci réew mi ñu di len menacer di len saga di len tiital ganaw bi len proposer xaliss pour nous bay procédure bi ku jigen ke tay dawna na Dakar. ak doomam un état responsable état bu ne dafay protéger faible bi dafa war a protéger aj euh, euh, Louise ak yaayam utal leen kër bu ñu dëkk ñu enquête ñu si seet ñan ñoo leen doon tiital ñan ñoo leen doon proposer xaalis ñu teg leen ci yoon mais defuñu ko seen yoon nekku si parce que kooku du du du du du du kooku du doomu kooku du kii ko violé du tuumaaluñ ki ñu tuumaal du Ousmane Sonko kooku amul leen truc au contraire daf leen opération boobu daf leen gêner dama koy wax dama koy bamtuwaat xale bu jigéen bii nu jàpp violé ko ca Arabie Saoudite waa ji di ko siif pendant trois ans bi ko yaay ji yéegee xeex consul général bu senegal bu Sénégal bu nekk Arabie Saoudite Aboubacry ñu xëy ñoom ñëpp ànd ak ministère des affaires étrangères boobu am baa moo fi nekk ñu teg ci seen tànk bëgg coow loolu bu mu jóg man sama man sama jëmm bu tuuti bi ànd ak maître euh, Clédor Ciré Ly ñoo xeex ba ñu mën a rapatrier violeur bi ak yaayu xale bi ak xale bi indi leen fii Sénégal lan la ñu def dañu dugal waa ci kaso bi procureur de la république dafa jàppalu lu ji ñu dugal ko ci kaso bi gannaaw bi section recherche defee enquête bi dossier gynécologie ju kii ñëw confirmer ko ñu tàppalee def genre nee nañu convoqué nañu famille bi pendant trois trois fois fexe ba yaay ji du jot convocation ñu xëy jël euh, abu abu Mohamed Ndiaye libéré ko ne ko demal ko constitué avocat maître Clédor parce que ñaar mu dossier bi mu appel ñu ñu jugé ko ñu jugé taxaw ak taxaw ak plus les rapports médicaux tribunal reconnaître ni c'est un violeur ñu condamné à 10 ans de prison mais kérok bi nous verdict dans 10 jours ou dans 4 jours violeur bi Abou Mohamed Ndiaye mu fexé ba kérok ñewul ci salle bi procureur de euh, tribunal décerné 10 ans de prison ferme mais comme nekul ci salle bi parce que bu nekkon ci salle bi le procureur, président du tribunal de wax ni je je je je je da fay kii mandat de dépôt fay je décerne mandat de dépôt fay wax mandat de dépôt mooy nañ ko japp duggal ko ci kasso bi mais comme nekkul ci salle bi bo boobaa dañuy def mandat d'arrêt lañ koy defal. boobak léegi Abou Mouhamed Ndiaye mu ngi daw fii ci Sénégal kenn jàpp ko ba tey et ça fait plus de quatre mois xama cinq mois biñ ko tëjee pour dix ans de prison benn avis de recherche defuñu ko pour dem wuri ko jàpp ko dugal ko ci kaso bi alors que kooku siif na xale defoon na ko keneen balaa mu koo def xale bi Arabie Saoudite buñ ko jàppalee dina ko defaat keneen waxoon naa leen keroog wax leen kaaw Koli Gomis bi nga xam ne siif na doomam di di di di di euh, di Merry Gomis pendant des années balaa Mary Gomis ay sërëm la ko doon def mu dénoncé ko ñu jàpp ko ñetti fan nañ ko denc ñu ne noo kooku wéerut ak affaire yooyu tappalee bàyyi dossier bi noonu mu dem ay nit ay jigéen ay organisation de défense ñu ne défense des droits de femme jug na ñu taxaw ñu ne ñoom ñooy yaayu Adji Sarr ñoom ñooy ànd ak Adji saar ñoom ñooy protéger aji saar mais ñu mënuñu jóg jàppaleel ma ñooñu te yàlla rek tax. ñu ñoom duñu bouger ñu ne ñoom seen yónnee nekku si parce que kee jógee Arabie Saoudite yaayam amul xaalis baayam amul xaalis Mary Gomes amul dara ci lu mu la ci mu ci mu langaamu Adji Sarr boo ko waxee aha gars yi bokk la xaalis gars yi joxe xaalis maa ngi dégg ñeneen ñi naan oui vous êtes des corrompus vous êtes ñun bu ñu bëggoon corrompu man damay ànd ak ñoom lu ñu wax ma ne ko gonga saa su ne ma yeewoo naan leen Eh, lam lam tooro sàll ngaari lam toro, xam nuñ koy waxati bor buur gédeel ma wax ko kon damay nekk à l'aise coow lu du foofu maître Malick Sall dafa jël le contre-pied de ce qu'a dit le gouvernement maître Malik Sall daf ñëw xamal ni dossier bi en fait comme ni ma leen ko waxee woon te saan caaxaan mbaye mais caaxaan nañu

sumay wax li tay deug la tay je suis je suis ému dama xawa feex dama xawa contane parce que ben deug la sama anniversaire la mais met malik Sall nee len desan ndeysaan bi ñu def liggéey bi pap ali def liggéey bi Ahmed Aïdara def liggéey bu pap Ndiaye Walf def liggéey bu euh, Muhammad Job def liggéey bu wa Walf def liggéey bu ay journalistes yu libre def mu ne leen loolu moo doon dëgg ñun luñ nekkoon mooy caaxaan parce que dossier bi amul dara kontaan naa trop tey mais ci sama mbégte sama xel dafay nekk ci nday xadi nday njaay ak jëkkëram Ibrahima Koulibaly mi nga xam ne seen liggéey bu ndaw boobu lañu amoon di ci suturlu di fay ordonnance seeni di fay ay ñu xëy ne leen ràpp arrêté leen seen liggéey ñu fexe encore complot ak borom kër gi pour mu dàq leen këram ñooñu tey dañu mujje génn amatuñu fu ñu dëkk sama xel tey dafay dem ci euh, euh, sama rakk ji capitaine Omar Touré xamal ko ni euh, ñun ay ndaw réew nanu ñun ay ay ay sacrifier même pour Sénégal le don de soi Sénégal rek ko jar tay bu <coughs> sa carrière gendarmerie jeex alors que tu étais promis un très bel avenir naka nonu lañuy dund ñun kenn domaine man mi wax ak bloqué sur Western Union mënutu ma jot ñaar dërëm mënu ma yónnee kenn kenn mënutu ma yónnee xaalis man mi wax ak yéen supprimé sur Facebook ci compte boo xam ne depuis des années man mi wax ak yéen épié euh, espionné matin midi soir mais yoonu dëgg du yomb tey dama kontaan. parce que quels que soient les risques quel que soit les ñuy quels quel que soit les suba di doon ñoom dañuy juum rendre hommage sans le vouloir ba àdduna di tukki Ousmane Sonko li mu ak ci biir suite spa beauté la yem Adji Sarr Ousmane Sonko xamuko won mais en un moment bi mu gisee Adji Sarr euh, maase nako une fois deux fois dafa demandé won Ndeye xali ne ko bu jigen bi bu ma ma wat bu ma djégé wat parce dafa dafa dafa n'est pas normal goudi gi Ndeye xadi demone ci hôpital bi dem seeti domam, bu Ousmane Sonko di ñew ci ginaawam Ndeye xadi bu xamone ni. Ousmane Sonko day ñëw daf ko doon ne bul ñëw wala du nangu eh, Adji Raby jege ko parce que moom décidé wu na dafay dàq Adji Raby Sarr loolu mooy dëgg aji wax na am na benn message buñ ñu ko transféré jël na ko mu transféré ko ki nga xam ne mooy Sidi Ahmed mbaay ne ko gardel ma ko wax na ko ci benn ojo ci ben enregistrement moy la fameuse vidéo conversation bi mu def ak tappalekat journaliste yi tappalekat yi ko nar bobu ci ay client am la ne ko ñëw ngi devant kër gi sonné naa mais les dégguma d'adi xadi daal di bind ajira bi mais fekk aji mu ngi nelaw le temps aji di yeewu fekk que ji dem na message bobu moy ci lënd bi message bobu la aji transféré yone ko kële di euh, Sidi Ahmed mais message vous ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko donc une fois encore ma préciser leen loolu tay sama anniversaire la jërëjëf ci ñi ñep ñi moy souhaiter joyeux anniversaire mais euh, le plus beau cadeau maître malik Sall moom ma ko defal jërëjëf maître dina gëna a nak nag su ma yónnee ay méchoui maître néna na euh, bàyyi balu bi nga ne moom laa galon mooy jàppante bi nga xam ne moom laa galon ne len dina ñëw wala du ñëw donc ñi ne ñu ngi yoon daas fanaanal préparé woon dañuy jarul ngeen di préparé jarul xeex jarul dara nañu ñun ñëpp nek si jam parce que maître sal Sall nee len dara amut euh, ñii sama jigen wa euh, wa Kodas sama jigen Françoise Hélène maître la maître mi nga donc mo xam ndax la justice dara donc ngir nañu ngeen ñibisi ñoo nga réellement parce que Adji Sarr ngeen balma mom elle fait partie de ce qu'on appelle les fausses violées ñoo jappalé ñi nga les véritables violées parce que ñu elles ont besoin de l'aide des Sénégalais quel que soit le nombre d'années qui nous siif nga xam wala yow tu as l'impression que tu n'as pas suffisamment protégé Tu as un sentiment de culpabilité à vie devant ton enfant devant ce don bi nga le ne moom sentiment boobu moo que ci Fabra Fabrama Sarr déedéet encore nee naa leen bàyyi bu irresponsable la foofu laa mën a yem ci moom parce que bëgguma ko waxal yenn ñi nga xam ne xam nañ ko duma ko wax waaw papaay Adji Sarr ku ko gën nekk irresponsable amut mais temps yi doom ji liggéey na am na am na ñu notoriété au-delà de la notoriété am na ñu féex boo xam ne bon mën na ko tax mu def yenn conneries yi mais ñun moom du objectif suñu objectif Sénégal Sénégal Sénégal dal Sénégal di nga sa Sénégal bi la le 2 juillet en tout cas c'est un marqué. bien vrai que le 1er juillet la c'est un marqué dans les annales de l'histoire du Sénégal ay nit taxaw na ñu complot li tax mané complot un complot ça demande d'abord à préparation complot fay am préparation moom la préméditation c'est une circonstance aggravante en matière de délit d'infraction ou de crime euh, avocat bi maître Georgian, Diagne Lénine mo defar li leni neena deere déedéet du dëgg Dior moko def mais gis ngeen ni leni ci bopam neena na man recevoir na Adji sar 15 jours avant donc c'est un aveu préparer nañ ko Adji Sarr diwa ko yóbbu diwa ko yóbbu diwa ko yobbu ma xamal len ni encore ni kérok bi Adji sar section de recherche bi mu nekké ci biir bureau bi di wax capitaine Touré nan ko tonton est-ce que am problème di wax mama ba nan ko mama ngir yalla ma jox la 100000 nga disparaître bobu ab jigen ab avocate. mu ngi toog ci ku section de recherche moom la la faroon defi bi ndey xadi ne ndey xadi taxawee mu ne Ousmane Sonko du dëgg du violé wul ku jigéen ki jël na taxawu na mu ne dinaa woo procureur de la république mu nangamtaan ndeyam ci kaso bi parce que moom mu ngi nii naan day protéger Ousmane Sonko loolu lépp nit ñi am nañ ko ay témoignages yu concret yoo xam ne ñoo ñu ñooñu ragaluñu dara bu waxtu wi jotee dinañ toog wax waaye dafa fekk ni. dañu tollu fo xamne dañu bëgg réew mi mu dal gënu ñoo nekk sénégalais man bokuma ben parti bokuma APR bokuma euh, PDS bokuma PASTEF bokuma ben parti ben parti bokuma ci parce que sama rôle moo ma ko permettre tay ni ma taxawé di défendre deug non la taxaw woon en 2006 l'observateur la laa la tax ñu jëlé ma ci l'observateur li la dama nekkoon l'observateur di liggéey ci rédaction bi coupure courant yi metti ci 2006 Samuel Sarr ak njabootu Ablaye Wade ñu def lu leen neex ci sunu courant bi ma ci kaas di ko bind ci l'observateur gars yi def pression Youssou Ndour Youssou Ndour jëlee ma fa man ak Assane Samba Diop mën nañu nañu ñëw ñu gérer banque bi mu tuddee Birima ma nekk charge de communication bi ma comprendre ni loolu c'est pour ñu damm samay laaf la démissionné créé suma journal bu tudd l'indépendant hebdo journal boo xam ne cité Fadia laa ko dëkkaloon may ñëfé parce que man musuma yaakar ci kenn kenn joxuma xaaliss pour ma liggéey sama liggéey may taba taba may débrouillé wu bi ma défé sama journal ma am 4 numéro la def bi mu bi mu bi mu dëgëree ci man la tej dem suma yoon APR bi ñuy créer sen parti ci Paris bañ leen di téré bañ leen di euh ñu leen di journaliste di leen daw Ore Cham desan, c'est une opportunité mo xotay ore Cham mi nekk tay wetu Macky Sall ñëw mu wa RTS full ci Paris mu organiser ben rencontre bo xam ñom madame Mbacke dañu warona a ak wa PDS parce que PDS moo nekkoon pouvoir ñu boycotter len ñu boycotter wa APR wa APR ñu won ben journaliste bi la doon waxal man Babacar Touré ma doon ma la doon waxal ci Paris wa APR ñu won kenn ku len défendre kérok bi euh, Pape Diop nek Pape Diop nek président de l'Assemblée nationale ànd ak délégation mu ñëw ci Paris dugg ci consulat ba.

Macky Sall sëram bu tudd Rokhaya Sall magam bu jigen. and ak madame Mbacké muy vice consul Sénégal man lañu désigner décerner jox ma diplôme décoré ma comme le le le des journalistes les plus engagés le journaliste sénégalais le plus engagé pour la cause des justes man lañ ko tak tab euh, euh, décoration boobu man rek lañ ko tab fofu ci Paris donc tey bu leen Babacar Touré dafa contre APR dafa contre président mais du dëgg contre ma kenn anduma kenn barki démb bu ma bokké plateau ak ki nga xamné moy mooy Doudou Wade loolu bi paré paree mu qu'est-ce que tu as contre le PDS je n'ai rien contre le PDS je n'ai rien contre les hommes aussi ay pratique lay contre dama dama wër àddina gis nit monde yi organisé au monde yi civilisé ma bëgg la même chose pour Sénégal parce que fitna bu ñuy woote bu fi am bu fi amé kër kenn xamul ku ci mucc man mën nek victime yow mën nga nek victime kenen ak kenen ak kenen ak kenen mën nañ nek victime tayji senegal les objectifs sont ailleurs nawet bi ñu dugg sama xel demati ci wa keur Massar sama xel dem ci wa pikin sama xel dem ci wa parcel ben yene parti yu parcel Assainies nga xamne kenn mënu fa accéder desan tay père de famille ñu ngi wër di outil lias fenn fu ñu mëna daw wala ku leen abal ben pugus bu ñu lal ba nawet bi jeex ñu mëna dal waat seeni kër am na kër yoo pendant 6 mois seeni borom duñ ci ñoo ñu lay xalat lolu moy priorité ci mais du pour jënd ay armes ma ngi gis barki dem ñu ngi guéné mais Sénégal kan moy ennemi direct bo xamne da fay attaquer Sénégal à part le MFDC bo xamne on est tous d'accord ni mouvement rebelle ba ca Casamance da fa wara jeex parce que dafa tardeel Sénégal gàcce ngaalaama armée nationale ci liguey bu mu nek def fof mais lu dul loolu ay ay ay visite de prestige ay salaire yu dof ay auto yu dof diko jox ay nit ñoo xamne leen carrément ñun ay ay ñun. suñu yoon si loi bu ngeen indi ñu ñu voté leen donc tey bu ñu leen indiloon tey assemblée nationale xam ne dañuy transformé ñun ñëpp ay jaam da ngeen koy voté ab réew boo ci bokkee yàlla may la nga bokk ci réew da nga war a xeex pour réew moom mu avancé ñun loolu mooy suñu combat loolu moo tax ñu ñu yëngu loolu moo tax ñu ñu ñu ñu sacrifier suñu lépp moo tax ñu gën a continuer di sacrifier suñu lëpp

alors que amona opportunity, opportunité comme ñenen mun dem dëkki feneen wala dem am nu numu nu numu nu numu nu ma nu adno nu nu ma féetewoo mais àdduna du yag mukk parce que Sénégal moma jaral lo ne donc euh, mbokk yi li moy li ma leen bëggono wax leen tay sama anniversaire la ne leen le meilleur cadeau maître malik Sall momako defal nee sen PV bi dara nekku ci nee euh mënuñ ci won japp kenn duggal ko su mandat de dépôt donc loolu motax liñu li def moy contrôle judiciaire mais gis ngeen ni yef yi defena depuis le 8 euh, mars le won le 8 mars bi ñu ne placé nañu Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire le 8 mars bobu lañu ñu placé ki nga xamné moy président Macky Sall ak gouvernement sous contrôle populaire il y a deux actes. Un acte symbolique et un acte judiciaire. Un acte judiciaire, bi mooy contrôle judiciaire bu ñu def Ousmane Sonko ne a amuloo droit def lii amuloo droit def lii droit de faire. mais keroog la leen Sénégal tamit defal askanu Sénégal ne le contrôle populaire lañ leen teg nous avons ngeen fi lu fi newoon dootu borom xel soxlawul ñu dugg ci détails yii yëpp yu tardel réew la rek yii yëpp diversion la tax na gis naa sax yeneen yeneen yeneen malhonnête parce que malhonnête laa lañu di tuddee parce que le mot le mieux indiqué pour bañ leen wax yenn yi ñu naan Babacar saaga wala wax na yenn ñu ne dañuy tëqale tappale bale complot bële ak li nga xam ne moom la suñu doomu xarit bi def Cheikh Yérim muy violu dëggantaan jaay bi parce que waxon nañ leen ne viol parce que on a été gentil euh, li nga xamné article bu définir luy viol article trois cent vingt tout acte de pénétration Bo xamné c'est fait il faut d'abord que moi am pénétration fait par la violence ruse ak yoyou mom moy viol lu jëm ci kaw Ousmane Sonko loolu amu ci lolu amu ci tey jii sunu kaaw xale bi di souleyman Sidi sek pap sek la tudd gis nañ ni y a un acte de pénétration bo xamni mom moko filmer mom ci bopam mo am fitu filmé ñaawteef bu muy def acte de pénétration filmé puisque cet acte de pénétration ñoom lu ñu won moy xale bu jigen bi d'accord na mais ma fàttaliwaat len waxat len ko bamtuwaatal len ko xalé bo amagul 18 ans bu nangoo nga teud ak mom sax lolu pour loi lolu viol la mënut a nekk bu fekke ne kiko ko mineur moko ko ak mag mineur moy ba 18 ans mag moy après 18 ans c'est le cas de Sidi Souleymane Seck mais dafa am lenen encore lu ñeu aggravé kaw Sidi Souleymane Seck parce que bu dee viol la entre cinq ans la ba dix ans lañu wax de prison. Mais cas aussi du Suleiman Sek, on n'est plus dans le viol, mais on est dans la pédophilie. Pédophilie, article 320 bis. Article 320 bis du code pénal. Nena. Bu fekkee ne ab mag moo un mineur de 16 ans pas de 15 ans de 16 ans c'est-à-dire que bu jigéen bi amagul 16 ans a si di euh, doomu doomu doomu pour ko ci kaso parce que jusqu'à 16 ans ci pédophilie la ñuy dugg pédophilie c'est de 10 ans à 20 ans de kaso 20 ans xalé bi 20 ans de kaso nous lay commencé adunaam ñu ñu no waru len wax noonu parce que xalé bu ndaw la oui ñu wax noonu souhaité lu ñuko Cheikh yirim Seck mais dañu bëgg euh doomu ñoxor Njaay nañ ko yemalee ak doomu Cheikh yirim Seck nañ ko yemalee ak doomu xomo euh Albert Mendy bu ñu nekkee ñoom ñëpp sénégalais wala ñu nekk ci territoire sénégalais bu ñu defee nañ leen atté atté bu atté bu yem lool moy wax ci donc Sidi souleyman sek bu len ko waxati dafa violer dafa commettre un acte de pédophilie parce que gis na ni charge yu justice reconnaître yu yu ñu charge ni koy topé ah, viol la ñu wax détournement de mineur xawma lan ak lan ak lan mais dañ ci wara bolé dañ ci wara bolé outrage au bonne mœurs attentat à la pudeur parce que attentat à la pudeur outrage au bon mars moy nga jël lu ñaaw lo xamné as société bi bëgg ko nga tek ko ci kanamu société bi loolu la xalé bi def filmé ñu tek ko boole ci site internet yi ak journaux yi ñu ngi leen di jappalé woné turu xalé bi alors que loi daf leen ko interdire article 17 du code de la presse daf leen interdire ñu génnee li nga xamné moy image wala ay initial sax comme nit ki tudu Nogay Mbay nga def N m amulo droit nga def ko ñom dañu joxé turam joxé photom woné encore un pseudo une pseudo conversation nee nañu waxtaan la bo xamni ñom ñaar ñoo gi parce que boy bi daf ko enregistrer sans que mu yëg ko enregistré nit fekk d'accord fekk yëguloo délit la jël délit bu jël jël enregistrement bobu nga tassaré ko benn délit la encore ma ngi sante yalla di gërëm wa correct ak Mamadou Thior di gërëmaale wa Simpix mi nga xam ne sen attention ci lolu ne len parce que luñu baye mu jàll ñun ay journaliste ñu am na yoo xam waruñu ko def suñu ko baye mu jàll suba bo yu bari ñu nekk ci presse bi xamuñu dara lu journalisme dañu dañu dañu dañu mëna bind site internet rek wala ñu mëna copier coller rek ñu ñom ay journaliste ñu ku leen neex ñu saga ku leen neex ñu yak sa der ñooñu utikatu xaliss lañu ah, xamuñu respect amuñu code amuñu éthique xamuñu déontologie xamuñu dara lu leen neex lañ xam affaire banditisme affaire rewandel ñu jaay ci internet Macky Sall wa bi muy wax noonu pour réseaux sociaux ak ñooñu daf ko wara commencer d'abord par ci internet yi site internet yi ñu taxaw di saga nit ñi te defuñu leen dara mu neex leen sant yalla ba correct bi mu génné xamal leen ni li du journalisme mais il faut pas que ça s'arrête là ma ngi xaar ki nga xam moy Awa ndjay muy euh, CDP momi it dafa war génn. mu condamné puisque mom amna droit de poursuite mën na contacter procureur de la république ñi daan leen war a ci li parce que li togn la ma ngi ci xaaree tamit toutes les femmes éprises de justice déglu ben benn ku jigen ku ñu kenn moomu yone sa vidéo bi parce que koko xaw ma sax mu ne leen à partir d'aujourd'hui bu bu ñu jàppati benn violeur def ko ci kasso bi dañ leen wara a ku jigen koko du ko tontu dama kay bàyyi ak kaddo aduna ngi ci kanamam duma ko tontu parce que ñun man nekkuma fi pour xëccoo nekkuma fi pour xeex dama nekk pour gindi sama askan pour expliquer leen lii boo ko defee lii moo la ci fekk pour wax leen ni lii lañ jëm pour anticiper wax leen ni moytu leen lii artu askan Sénégal ndax dama dund ay fitna bëggaluma Sénégal fitna loolu rek mooy suma liggéey bokkuma Pastef duma porte parole kenn duma porte parole diw duma porte parole kenn man porte parole askanu Sénégal la tey jii ni may waxalee waa kër ñàkk jàmm suba bu naik kenn nekkoon tamit bo defé luddul dul yoon damay taxaw ni tem taxaw suma askan man loolu ma yalla natto natu la nattu suma sangon xolam ma def comme suma gaay def la même chose di wër dem réglé ci sama réglé taxaw fële setan len mais mënuma ko dëgg fu mako gisé fenn suma ko waxee damay fébar donc à partir de tay lu bëri dina changer ci réew mi euh, gatcha ngalama capitaine sidna Oumar Touré gàcce ngalama nday xadi ak euh maa ngi wat ñëpp di balu ak ñëpp te di balé di euh, beesalaat sama njaal njabot gi nga xamné ne rey nañu seeni dom fukk ak ñent lepp ci fen ak ci tapalé ministre euh, ministre de la justice reconnaître tay dossier bi amul dara motax depuis mois de mars bataille le 8 mars bi ñu Ousmane Sonko placé nañ la sous contrôle judiciaire bataille ben acte d'instruction defuñu ko ben acte d'instruction defuñu ko alors que le juge d'instruction c'est un enquêteur en puissance c'est-à-dire le juge d'instruction dafa wara démat salon suite spa beauté bobu nga xamné enquêteur yi dem nañ dafa constatation mom ci bopam dafa waroon dem dem defi constatation fof xol nan la affaire yi lalee lali fu mu nekkon buntu mais pour woon li <laughs> bugguñu dëgg dañu fexé ba borom kër gi dàq fa nday xat Ndeye Khady ak wa këram Ndeye Khady jëlaale ay bagage am génn foofu donc bagage yoy ak lal yee fan la tëddoon nga xam dañ fa waroon def reconstitution loolu lepp dotul amati c'est comme si euh, on fait sciemment entrave à la justice loolu lañu ñuy entrave à la justice c'est-à-dire tu empêches l'éclatement de la vérité fi nga xam fa la enquête fa la juge d'instruction waroon na ñëw xool buntu kër gi nan la tëddoon caméra yi fan la matériel lan lañ tëddoon nee nañu borom kër gi génnal kër gi dàq leen bu ko defee ñoo ñu jëlee nañ fa loolu lépp léegi tey bu juge bi bëggee bu juge bi bëggee def reconstitution il va falloir que mu delluwaat ci kër googu delloo si waat ñoom day xat yi ak seen matériel kenn ku ne mu ñëw toog xool lan la defoon jour boobu loolu lépp mënatuñu ko mënatuñu ko mënatuñu ko mënatuñu ko am parce que dàq nañ leen ci kër googu suite spa beauté amatul benn journaliste dootul mën a demati foofu visiter locaux yi visiter bagage yi may féliciter suma suma rak yi Sene News ñi nga xamne ñom la andalon fof pour l'histoire et pour la pour la postérité ñun tek nañ fa suñu tank duggu nañu gis nañu nek banu nu suba historien yi waron nañ ñew suba élève yi waron nañu ñew dans 20 ans dans 50 ans dans 100 ans euh, Adji Raby Sarr fi way bo xamne do fay mukk waro nañu dem ci neeg bobu ci kër gogu xol nan la kër gi tedde won nit ñi ñu jàngale ñi nga xamné ne magistrat la ñu ñu jaare fa pour ñu jàng ñi nga xamné ne ay enquêteur la ñu ñu jàngale leen histoire histoire Ousmane Sonko ak Adjara Bissar Sarr suba ñukoy wayal xalé yi mais nenañu nañu loolu lépp du fi am nenañu nañu borom kër gi allez euh, dégager leen ñu jël seen bagage ñu genn bagage yi genn nañu reconstitution mënu fa amati kenn xam lan mo fa xew lolu moy Euh, euh, euh, effacer les traces du crime ou parce que dafa am loi sax boo xam ne dafay wax <coughs> euh, comment on appelle changement wala la destruction d'un lieu d'un de d'un lieu présumé de crime kenn amul droit mu changer fa dara loolu moo tax tey boo bu ngeen gisee bo amé buñu rayé nit wala moom benn cambriolage na gars yi di ñëw ak ay caméra wala ay photo di photo quoi pour ficher pour que loolu ñu mën koo ñu mën koo sauvegarder mais tay parce que PV bi ñu gis amul ben photo PV bu ñu gis amul ben film vidéo yi neewoon naa leen caméra ya fa nekkoon keroog filmé wuñu donc juge d'instruction si la wara war basé pour enquête affaire bi d'autant plus que dama yalla bal juge d'instruction yu sérieux yi nga xam ne man xam naa leen ci adina bi dañuy sol sen dañuy sol sen training dem ci terrain bi ànd ak peut-être ay policiers wala gendarme yu leen gunge ñu dem enquête fii juge d'instruction Sénégal seen bureau la ñuy instruire lépp du ñu dem fen dañ lay ñëw laaj la nga wax a wax wax alors que juge d'instruction dafa war a dem xool xool mu dem xool bâtiment bi mu xool fan la affaire yi amee le lieu présumé du crime kenn war ko détériorer kenn waru fa changer dara dama doon wax ak Ndeye Khady nekkoon ko Ndeye kër gi waroo fi génn kër gi waroo leen fi génn parce que c'est un c'est un patrimoine historique du Sénégal c'est un patrimoine du Sénégal kër gi dafa wara rester suba ay ñuy joggé fune di ñëw di visiter kër gi di fay nit ñi di fay pour visiter kër gi pour xam lan mo en en en février en février 2021. mille la et leen don wax moo tay bu borom kër gi jënd kër gi bu doon jaay kër gi fekk sénégalais dañu wara courtiser jënd kër gi en l'état parce que c'est un témoignage du passage de, ce, de, de, de, de cette période de l'histoire du Sénégal. Mais bañ nañu nee nañ leen génn leen kër gi juge avant juge d'instruction yi di jaar avant ay enquêteurs yi yeneen enquêteurs yu bokul parce que enquêteur enquêteur ba fa jaar mooy Sidna Omar Touré ak ñi mu àndal ñoom nee nañu dara xew fi lii mun dara mënu fi xew donc c'est ñoom c'est sur la base de ñoom seen conclusion d'abord le euh, procureur waroon a décider ndax fay arrêté ou pas wala muy jël dossier bi diko devant le juge d'instruction ñom seen dossier nenañu wax ji wax ji naka sa kandang la wax si falla falla la jarul door sa dom mais procureur ngoy na ci dossier bobu ne len yone nako juge d'instruction juge d'instruction keroog mu ne bonjour naka nga def mu ne ko um, no Ousmane Sonko Ousmane Sonko vous êtes inculpé et placé sous euh, placé sous contrôle judiciaire allez au revoir ciao xadi no noo tudd xadi Khady xadi la laa euh est ce que Ousmane Sonko violé na déedéet est ce que Adji Sarr mon ko déedéet mu ne ok Ndeye Khady Thiaw jeex na ñu ni ministre Malik Sall mi nga xamné avocat la du dof doful de doful avocat la xamna bu baax mu ne dossier bi amul dara li tax ñu mëna placer nit ci mandat de dépôt alors que le juge d'instruction Mamadou Seck bi mu xolé dafa décider ni ku jigen ki Ndeye Khady duma ko placer su mandat de dépôt mu ne ko ñibbi. ndaxte ñoom dañ new naka placé su mën a dépôt loolu ñu bëggoon ci moom mu bañ ne ko ñibbil bi ñu xamee ni la même chose lay def ak euh, Ousmane Sonko daaka naan ñibbil la ñu xëy ñu ne léegi ba waa ci Ousmane ko bu dellusee ñëw ci moom du ko placé su mën a da koy bàyyi mu ñibbi kon Ousmane Sonko day jubilé day am victoire moo tax ñu ne organisé wu leen ngeen kidnappé ko ngeen yóbbu ko ngeen yóbbu ko euh, gendarmerie ngeen yóbbu ko fee nga xam ne mooy seen euh, seen kii bi comment on

waxtaan wi gudd trop tay mais dama bëgg ñu jàngé ci leçon dama bëgg ngeen xool fu ñu jaar à quoi on a échappé juste pour ay caaxaan juste parce que amna nit ko xamné mom lañu bëgg jot daf may fatali ndeysaan bima nekkon <laughs> bima nekkon xalé suñu kër sam papa dafa indi won loi bo xamné na ku tardé andu ku tardé du rer waaye malheureusement loi boobu man rek lañ koy appliquer maa man ma don tardé suma ma tardé añ du ma añ ku fi meuna a tardé añ dañ koy xaar man lañ don appliquer buma ma tardé reer du ma reer ku fi tardé day dañ koy xaar mu rer wala ñu may ko <laughs> c'est la même situation aujourd'hui de Ousmane Sonko c'est-à-dire le code pénal le code de procédure pénale toutes les lois du Sénégal on est prêt à les sacrifier parce que coûte que coûte bëgg nañu. nenañu ki, kii pour mu baña don, limu wara don donc kooku duñ ko bay mukk mu noy ci bi ma ngi len di gërem di len ñaanal jamm di len ak di balu ak jox len ndaje si kanam inshallah allah parce que damay déglu seen intervention xamna ni les uns et les autres ne vont pas se taire yalla ñu yalla may jamm donc ma ngi len di jox dig dajé si kanam légui légui inshallah allah jërëjëf.